laqin lisaani waxlulan minhu loqad wajcalahu zaakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di ñëw di àndaat ak yéen ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ñu ànd ak yéen ci suñu bind yi weesu ci téereem bi nga xam ne moo tudd Munawwirus Sudur te ñu tolloon ci bunt yi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def mu di ay dog ci biir téere bi mu jagleel ko cëri doomu aadama yi kon suñu bind bi mujj fi mu taxawoon mooy bunt bi nga xam ne wala dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jagleeloon ay gët muy gëti doomu aadama kon suñu bindu tey day continuer rek ci buntu yooyu ba tey waaye tey buntu bi nga xam ne moom la ñuy jàngatandoo ak yéen moom la ñuy fàttalente te moom la ñuy ak yéen mooy buntu bi nga xam ne moo jëm ci nooni doomu aadama sëriñ bi radiyallahu anhu tënke ko faslun fi zikri a'da'il insani di mooy buntu bi nga xam ne wala dog bi nga xam ne dees na ci tudd nooni doomu aadama wala lii mooy dog bi nga xam ne dees na ci leeral nooni doomu aadama waaye muy noon yoo xam ne doomu aadama bi war na ko bàyyi xel ndax mën nañoo wax ne du noon yoo xam ne da ciy teg bëtam waaye day doon loo xam ne ci biiram lay nekk waaye ci aw déggin rek la koy xame sëriñ bi wax ne an nafsu bakkan wa dunya ak àdduna wa shaytaanun ak shaytaane lainun yal na ko suñu borom rëbb maal hawa ànd ak bànneex aji gàllankoor la anil muini walif yàlla mi ñuy dimmandikoo ci ay aajo sëriñ bi radiallahu anhu ñuy leeral foofu li nga xam ne mooy nooni doomu aadama mu jëkk cee tuddu bakkan waaye tekke li nga xam ne mooy àdduna tekke li nga xam ne moo di saytaane ñaan suñu borom bi subhaanahu wa mu rëbb ko waaye tekke li nga xam ne mooy bànneexu bakkan sëriñ bi radiyallahu anhu na ñeenti noon yooyu ay noon lan yu mag yoo xam ne dañuy gàllankoor doomu aadama bu baax a baax ci digganteem ak boroomam waaye ci digganteem ak jaamu gi nga xam ne moom la war a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala ñena noon yooyu dañuy gàllankoor doomu aadama bu baax a baax a baax a baax mu jëkk cee lim bakkan bakkan nag doon loo xam ne dañuy wax ne euh, li alquran di wax ne euh, inna nafsa la amaaratun bi suu daf cee am bakkan bakkanu doomu aadama boo xam ne la muy muy digal boroomam di ko xiir boromam mooy di ko xiir ci aw ñaawteef waaye di ko digal aw ñaawteef loola rek lay xiir boromam loolu nag mbokk yi du bakkan bu baax te it du bakkan boo xam ne moom mooy taxa nit ki euh, mën a jaar ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu siraatal mustaqim waaye mooy bakkan bi nga xam ne day gàllankoor nit ki ci digganteem ak yàlla waaye day gàllankoor nit ki ci jaamu gi nga xam ne moom la war a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala ah, kon bakkan boobu du bakkan boo xam ne jaam bi war na koo topp waaye du bakkan boo xam ne doomu aadama bi war na koo topp waaye doomu aadama bi daa war a xam bakkanam boobu nga xam ne mooy bakkan bi nga xam ne aw ñaawteef rek lay digle su ko defee mu jéem koo moytu kon bakkan moomu ci nooni doomu bi la bokk saa bu ko nit ki toppee lépp loo xam ne moom mooy bànnee xam rek mu jox ko ko bu boobaa fa mu koy jëme du baax ci moom moo tax ab waykat waxoon ne wa nafsu ka tifli in tuhmilhu sabba ala xubbi rida wa in taftimhu yan fatimi nee na dafa mel ni ab xale bu toll ci nàmp nee na soo ko bërngalee rek day wëy rek moom di nàmp doonte ne dem na ba màggee ba wesu nàmp waaye bërngal nga ko rek moom day continuer ci ak nàmpam rek waaye nag nee na saa boo ko feralee mu fer loolu liñ ci mën a déggee mooy bakkan saa ko bàyyee bërngal ko doo ko toppatoo waaye doo jiim di ko xirtal ci li nga xam ne moo neex suñu borom bi subhanahu wa taala di ko koñe ci li nga xam ne moo di ay bànneexam kon moom la nga xam ne moom lay bëgg rek mooy bànneexu bakkanam rek lay topp te it ay ñaawteef rek daanaka moom la koy xertal su ko defee ca loola rek lay continuer nga xam ne moom feek feraloo ko ci uh, aw ñaawteef maanaam feek freiné woo ko feek doxoo digganteem ak di jëf wala di uh, bànneexu ci ay ñaawteef bu boobaa moom bakkan boobu uh, ñaawteef rek lay continuer di ko def kon moo tax waykat bi ne saa boo ko feralee moom bakkan ci aw ñaawteef dox digganteem ak ñaawteef Euh, dana fer waaye nag su fekkee ne da ko bërngal bàyyi ko rek euh, bu boobaa day continuer rek moom mel ni xale buy nàmp nga xam ne feek feraloo ko rek moom du xama du xama fer ñaareel ba ci noonu doomu aadama yooyu te sëriñ bi radiyallahu anhu tudd ko ci euh, bunt bi mooy àdduna àdduna doon kër goo xam ne du këruk saxuwaay kër la goo xam ne doomu aadama bi daf fiy jaar kër la goo xam ne yàlla def ñoo bind wàcce ñu fi di ñu fi nattu ngir xool kan moo ci gën a rafet jëf ju baax waaye kan moo ci gën a topp li nga xam ne mooy ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala digle kon àdduna loolu moo tax ñu nekk fi moo tax yonente bi doon wax ne kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil dana nekk ci àdduna mel ni Euh, euh, tumranke wala nga mel ni koo xam ne da ngay jéggi aw yoon su fekkee ne da ngaa tumranke moom la lay soxal rek mooy fexe ba dellu ca réew ya nga xam ne moom nga jóge woon waaye su fekkee ne da kuy jéggi aw yoon itam da ngay waaxu rek jaar ca yoon wa jàll kon àdduna nañ ko def ab jaaruwaay waaye bu ñu jël suñu yitte jëpp euh, jox ko ko ci bëgg ko waaye ci bëggu àdduna nag ki xol lay nekk ndax nit ki mën naa bëgg boppam waaye tekkiwul ne bu bëggee boppam rek euh, bëgg na àdduna waaye bëgg àdduna moom ci ab xol lay ne mooy lépp loo xam ne mooy martaba da koy bëgg waaye lépp loo xam ne moo di ak màgg da koy bëgg lépp loo xam ne moo di ak rëy rëylu da koy bëgg lépp loo xam ne da bëgg nit ñi di la ko kañe di la ko tàggee da koy bëgg lool dëgg-dëgg moo di euh, bëgg àdduna te doomu aadama bi Euh, adduna daf ko war a def kër goo xam ne kërug jaaruwaay rek la kër la goo xam ne euh, suñu borom bi subhanahu wa taala daf ñu fee wàcce euh, ngir nattuñu ba xam kan moo ci gën a rafet ay jëf waaye kan moo ci gën a bàyyi xel li nga xam ne moo tax mu wàcce ñu fi moom suñu borom bi subhanahu wa taala te mooy jaamu ko rek waaye kan moo ci gën a taxaw ci ndigalam yi di moytandiko bu baax a baax tereem yi kon nit ki su fekkee ne na noonu àdduna dina xam bu baax a baax ni mu koy jàppe waaye dina xam bu baax a baax it na mi bàyyee xel àdduna na mu koy jàppe mooy lan li nga xam ne moom la suñu borom defal mu di ab cër mu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax waaye nag cër boo xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala defal ci àdduna du tax mukk muy fàtte li nga xam ne moo tax suñu borom subhanahu wa taala wàcce ko fi te it ñu xam ne euh, doonte ne euh, àdduna euh, mbir la moo xam ne lu suufee suufe la te lu yàggut dara la waaye nañu xam ne ci la ñuy waajale ëllëg yowmal xiyaam ci la ñuy euh, fàggoo ëllëg loo xam ne suñu demee euh, yowmal xiyaam moo ñu fay jariñ waaye bu ñu jàkkaarloo ak suñu borom bi subhanahu wa taala mooy li nga xam ne moo moo ñu fay jariñ kon adduna euh, mën nañoo wax ne ci benn côté ñàkk na solo lool ndax yàgg da yàggadi lool te def fi lépp loo xam ne day euh, boo jàkkaarloo ak suñu borom subhanahu wa taala di ko rëccu daanaka loola jëru ko fi loola moo di ak ñàkk soloom waaye am na solo lool ci ak wet la tax solo mooy lépp loo xam ne moo ñuy mën a euh, xettali ëllëg yowmal xiyaam fii ci àdduna rek lañ ko euh, mën a jëfe fii ci àdduna rek lañu ko mën a jëfe moo tax suñu borom ne na ngeen nekk ci àdduna di ma jaamu waaye nag bu leen fàtte euh, euh, nangeen di bàyyi xel alaxira waaye bu leen fàtte seenu cër ci àdduna kon àdduna moom itam lu jara bàyyi xel la bokk na ci noonu euh, nit ki waaye nag bokk na ci li nga xam ne ci la nit ki di sukkandikoo ngir mën a am ëllëg yawmal xiyaam li nga xam ne mooy yërmande suñu borom ak ngërëmam moo tax benn xakim doon wax ne addunya axlaamu nawmin aw ka zillin zailin wa inna labiba bi misliha la yaxdaw nee na adduna day dafa mel ni géntuk aji nelaw dafa mel ni géntuk aji nelaw wala dafa mel ni ker goo xam ne day randu rek di dem nee na nag lépp loo xam ne mel na noonu lu mel ni géntuk aji nelaw nga xam ne bu yeewoo la mu doon géntu du ca gis dara wala ker goo xam ne day randu di dem te du dellu si nena na lu mel noonu day aji xellu ji wa inna labiba bi misliha la yaxdau aji xellu ji aji am xel ji aji euh, euh, xelaat ji nee na lu mel noonu du ci war mukk lu mel noonu du ko war mukk suñu borom subhanahu wa wax ñu ci alquran ne adduna euh, barab la boo xam ne bari na lool am fo bari na lool li nga xam ne moo di puukare waaye la nga xam ne moo fi am solo rek mooy nit ki loola lépp mu bañ koo geestu bañ a geestu pom yi nga xam ne moo fi ne bañ a geestu ah ëppalante gi nga xam ne moo fi ne bañ a li nga xam ne mooy e, puukarante gi nga xam ne moo fi ne waaye e, dëgg ma rek suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ko sàkk bind ko te andi ko fi te dara taxul mu bind ko wàcce ko ci àdduna lu dul ngir mu ko fi waaye ngir man koo jaamu ndax suñu borom subhanahu wa taala moo dafa def doomu aadama mu nekkal ko ci kaw suuf comme suñu borom subhanahu wa taala moo ko def mu nekkal ci ko ci kaw suuf nag la nga xam ne moo tax mu andi ko fi war na koo xam te moo di jaamu ko su ko defee jaamu googee mu taxaw ca na nga xam ne noonu la ko suñu borom diglee ci kem kàttanam euh, kon ñaareel boobu ci nooni doomu aadama bi mooy euh, euh, adduna ñetteel ba mooy seytaane ñetteel ba moo di seytaane yal na ko suñu borom bi subhanahu wa taala rëbb seytaane mooy li nga xam ne mooy jax-jaxal nit ki ba saa boo xamee ne nit ki jug na ngir defi lu baax seytaane moom mooy dugg ci am xelam di ko jax-jaxal ba lu baax la nga xam ne moom la bëgg na suttal euh, loole seytaane mën na koo gàllankoor ba du ko def euh, ci misaal nit ki mën na fas yéene lool Euh, bu fajar jotee mu yew julli waaye fajar jot saytaane euh, bës ko ci kawlal bi mu mel ni tëdd bi mu tëdd dafa neex rek saytaane continuer euh, di def ci am xelam di wàcce ci am xelam ne ko yow de fi nga tëdd neex na waaye jamono ji daanaka jërul nga ci jug di def dara su ko defee loole bu fekkee ne yàgg naa nekk ci am xelam di ko jax-jaxal rek bu yàggee mën naa dem ba seytaane ko xëcc ko ci la nga xam ne moom la bëgg saytaane mooy li nga xam ne mooy xëcc nit ki di ko jëmale ci ak mooy yàlla euh, mooy xëcc nit ki di ko jëmale ci li nga xam ne mooy bànneexu bakkanam waaye mooy xëcc nit ki di ko jëmale ci alkande mooy xëcc nit ki di ko jëmale ci alkande te ba ko suñu borom subhanahu wa taala bindee moom saytaane mu walbatiku ne ko euh, danaa euh, fexey ba sa jaam ñëpp tàbbi sawara suñu borom ne ko ñi nga xam ne euh, ñooy aji gëm ñi ñi nga xam ne ñoo ma gëm te ma dëgg-dëgg ñooñu day doo man ci ñoom dara kon saytaane moom itam am noon bu bon la boo xam ne lii yitteem dëgg-dëgg rek mooy fu mu toll di pexeyal doomu aadama bi waaye fu mu toll di fexey nu mu gàllankoore doomu aadama bi di fexey nu mu doxe diggante doomu aadama bi euh, ak boroomam ba li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala digal Euh, moom doomu aadama bi du ko mën a taxawee kon saytaane moomu itam lu jara moytandiku la waaye lu jara bàyyi xel la ndax lépp loo xam ne nit kaa koy jublu ci lu baax rek saa bu boo xamee ne ma nga cay yokkat rek wala mu cay diis diisal mën naa jàpp ne saytaane moom moo dugg ci am xelam di ko jax-jaxal waaye saytaane mooy li nga xam ne moo dugg ci am xelam euh, ngir bëgg ko wëlbati ca la nga xam ne mooy lu baax la mu jublu woon kon saytaane moomu yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala euh, rëbbal waaye yàlla na ne suñu borom subhanahu wa taala musal ci moom ñeenteel ba ci noonu doomu aadama yi mooy bakkan wala bànneexu bakkan banneexu bakkan euh, bànneexu bakkan nag mbokk yi bari na lool ndax lekk gi nga xam ne moom ngay lekk di dugal ci sa biir bànneex nga ciy am euh, tey jii njaaloo gi nga xam ne moom la nit ki di def. muy euh, loo xam ne lu araam la te it ak mooy yàlla la loole itam ci bànneexu bakkan rek la ko nit ki di teg euh, toog gi nga xam ne moom la nit ki di toog di nekk ci derub jàmbur di ko jëw euh, di wax ci moom lu araam di wax ci moom lu aay di wax ci moom ay ñaawteef loolu yëpp bànneexu bakkan moo ci yóbbee nit ki ba tax na bànneexu bakkan moomu itam bokk na ci nooni doomu aadama yi nga xam ne mën nañ ko gàllankoor ci digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala waaye mën na ko gàllankoor ci jaamu gi nga xam ne moom la war na jaamu yàlla ak wéetal gi nga xam ne moom la war a na wéetal suñu borom bi subhaanahu wa taala kon ñeenti noon yooyu ay noon lan yu màgg yoo xam ne euh, mën nañoo gàllankoor doomu aadama bi ci digganteem ak euh, suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye mën nañoo gàllankoor doomu aadama bi ci jëfe ndigali suñu borom bi subhaanahu wa te képp koo xam ne itam fexey nga ba ñeenti noonu yooyu xeexoo ak ñoom ba fexey euh, not leen euh, ëllëg yamal xiyaam ci réccu rek ngay mujj waaye ca way perte ña rek ngay bokk te yal nañu yàlla musal ci ñooñ kon moo tax sëriñ bi wax foofu ne an nafsu bakkan wa dunya ak adduna wa shaytaanun ak shaytaani la'in yal na ko suñu borom subhanahu wa taala rëbb maal hawa ànd ak bànneex ah iqatun aji gàllankoor la anil mu'ini ci suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ñuy dimbali ci moom rek la ñuy sàkkoo ndimbal mu ne kon jihaaduha jihaat ak nooni doomu aadama ma yooyu muy bakkan ak euh, adduna ak seytaane ak banneexu bakkan ne na huwal jihaadul akbaru moom mooy jihaad ju màgg kama ataana naka mu ñu dikke alxabaru xabaar ba bihi tukkee ca moom anhum walif leen kon ne na sunu jihaad dëgg-dëgg buñ koy wax jihaad ju màgg ji nga xam ne moom la ñu war a jihaad dëgg-dëgg kon mooy jihaad ak suñu bakkan waaye jihaad ak euh, àdduna ba li nga xam ne moo mooy ay gàllankoor yi ñu ci mën a euh, gàllankoor yépp ñu fexey di ko moytandiku waaye jihaad ak seytaane jihaad ak li nga xam ne mooy bànneexu bakkan ndax yonent bi sallallahu alayhi dañoo wax ne euh, ci euh, xadis waxoon na ne euh, saxaaba yi dañoo dem xare ji ba ñëw xare bi métti lool ñu juge ci ñëw bi ñu toogee mu ne saxaaba yi juge nañ ci jihaad ju ndaw ji saxaaba yëpp daal di yéemu ne ah su fekkee ne lii mooy jihaad ju ndaw ji de xamuñu jihaad ju mag ji nu mu war a mel yonente bi ne leen jihaad ji mag ji dëgg-dëgg moom mooy jihaad ak sa bakkan jihaad ak sa bakkan nag mooy lan mooy lépp loo xam ne moom la lay euh, jubale ci loo xam ne lu neexut yàlla la loo xam ne ab safaan la nga fexey ba loolee doo ca tàbbi waaye lépp loo xam ne moom la lay euh, gàllankoore ci jaam goo war a jaam sa borom bi subhanahu wa taala waaye wattu goo wattu war a wattu ndigali suñu borom subhanahu wa la lépp loo xam ne moom la la ci bëgg a gàllankoore nga a ba du la ca gàllankoor kon loolu mooy jihaad euh, ju mag ji muy jihaad ak yooyu nga xam ne mooy nooni doomu aadama yi fexey ba not leen waaye fexey ba joggi ci seen kaw ba du ñu la mën a gàllankoor ci lenn ci li nga xam ne mooy ndigali yàlla yi waaye duñu la mën a xëcc jëmale ci lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko aaye kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di wax ne in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi wassamawati على الصحابة والسادات كلهم ridwaanu rabbil araadi was samaawaati